président nag li bu mu def tax ma ànd ci olof day wax naan bu ndox tuuru al bàq ci des mais di nga am ndox di nga am suuf président dama ànd ak moom ca la mu def ca la mu wax xam nga lu tax jàmm jëm ci woote ak waxtaan wi bu fekkoon dafa ne jël naa décision duma ci waxtaan ak kenn dafa ne ñenu ñëw toog ñu seet lii nun ko mën a saafara ñi nga xam ni woote woon nanu ay mm-hmm. am na ñoo xam ni ca ba li am nekkuñu Sénégal ñu ngi woon ci lan Coupe mm-hmm. ci benn leader. mais dama lay wax li xew lii conséquences yi. mais mais mais le problème mooy le président moom mooy rendre ëllëg on va dire ci régime président Macky Sall maanaam l' opposition elle peut dénoncer elle peut rek mooy que ne régime Macky Sall la et que bi mu jël décision reporter élection yi ci la loolu am. waaw waaye nag nan nan fàtte xel nan bàyyi xel ni itam lu yàqu ci gànnaawam ñu ne moo ko seetaan xam nañ day dem yoonam nekku ci. Mm-hmm. président dafa nekk ci diggante gu xat. bëgg na réew mi ak li fi am ci koom ci pétrole ak gaz ak li nga xam ni yàgg na ko junj ni li xew yeneen dëkk yi ci Afrique ma nga jëm ci ñun am na nag ay force de sécurité yoo xam ni ña nga xeex ba loolu bañ am bu leen mayee protocole ba du dugg tasa tas réew mi ñun ñoo ci am coono. mais ñooñu ñu ngi retaan jamono ci pays yi ngay wax ñu ngi retaan il pense que ñoom maintenant le Sénégal ne vaut pas mieux que ñoom. waaw xam nga bu ñuy reetaanee li am solo mooy cappaandaw ko. teru Macky Sall yàqu na bu baax ah. déedéet na waxtaan am ba juboo am ba ñu defe ni règle ba élection am ci nañ ko bëggee wala ñu soog comprendre ba nu am ko gañe ñu nangu ne diw dafa gañe en toute transparence comme na mu gañe woon en 2012 bu boobaa coow di am dina am alternance boo xam ni bu dee ci gañe ci ñu la nekk te naan alhamdulilah bi alamin bu fekkee ni sénégalais yi ñoo yore seen carte votel keneen bu boobaa kenn mënul truc élection yi